te wax dëgg yàlla kii di suñ DG Pa Modou Fall moo woon jur wuyu na borom ndax dëgg rek moo woon ndaxte lii kat ñu bari noonu du am man demee si moom dañ noonu nax waaye tey jii nag jëf suul na wax jëf suul na wax waxuma am Cheikh Rahane Fall ba dikkaat ba keneen ñuy fay jëf bàyyi wax Pa Modou directeur président dëgg moo woon jaajëfati jaajëfati jaajëfati directeur maa ngi dem waa Ndiarème directeur yaay sàkk waa Ndiarème yaay tiitaru waa Ndiarème wane ngeen directeur de du toog ci kàddu bureau rek climatisé wane xam lan mooy njëriñu directeur de l'emploi man jàpp la ko joxee laa soog a xam li njëriñu directeur de l'emploi ñu ne teew nga génn ak kooku taxal ban wër Sénégal yëpp wane li ñu war a wane dëggal li ñu war a dëggal muy liggéeyu son excellence le président. engagé jigéen ku jóg na pour jàppale asken wi jox loxo CMU dama yaakaar ne sa jaan wàcc na parce que tey jii li may fa gis day daal sama xel parce que réew mi li fi nekk mooy ñàkkum xëy ak feebar bu xëyee néew na damay wutal xale yi liggéey wane ko firnde ko ñu ne déedéet waaye mu ne mag ñi kat dama leen jàppale seen wérgu yaram dama dugal si seemi bi comme comment feebar mën a faju kon jaam day wàcc day day ànd ak mu jëm parce que réew mi soxla benn soxla moo jiitu soxo yëpp muy wër gu yaram ku warul doo liggéey te mag amul kàttanu liggéey kon ni ko mën a jàppalee mooy bu feebaree mën a faju carte yi ñu jox tey nag njëriñ li mooy lan mooy képp ku ñu jox carte li nga waroon joxe Pape Bourou Fall joxal na la ko foto adhéré na la fayal na la bu weer passé carte bi doo koy jëriñoo mooy fu la feebar dale ak gox boo mënti dëkkee si commune Diourbel am na poste de santé bu fa nekk am na mutuelle bu fa nekk boo jëlee carte bi dama sa mutuelle ba ñu jox la lettre garantie nga dem sa post de santé ba foo war a fayee junni ñaar téeméer ngay fay ñooy bu ñu tëlee yabal la dispensaire foo war a fayee junni ñaar téeméer ngay fay dispensaire bu ñu tëlee yabal hôpital foo war a fay junni ñaar téeméer ngay fay muy paj meeg garab yeeg analyse rajo yeeg écho yi lépp junni bu na ñaat téeméer ngi si fay bu ñu la bindalee garab nga xam ne or am boo demee si mutuelle ba ñu jox la lettre garab garab pharmacie foo war a fay junni fay juróomi téeméer yaakaar naa ne kon ndimbal loolu am na solo trop te kon war nañ ko see jaajëfal bu baax a baax a baax parce que xéewal mënut ëpp loolu àdduna bi feebar da nga fi nekk moo sonal ñoo sonal ñëpp pàcc mi cher tey bu jógee nag pour dimbalañ si loolu ñun waa CMU dañu ñëw ànd ak moom di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral taxawaayam parce que boo xoolee Sénégal ni mu bindoo programme CMU couverture maladie universelle Macky Sall boo ko tëral gox boo dem Sénégal ña fa nekk di liggéey ak askan bi ñoo leen di ñoo leen di adhéré ñoo leen bu weesoo Pape Modou Fall amul kenn ku jàppale CMU njaaram ku Pape Modou Fall parce que njëkkee na ko si daara yi comme ni ko sama gànnaaw yi waxee woon léegi mi ngi dugal lu mat junniy mag di leen dugal séemi bi dañ koy nag kon yàlla na yàlla yokk kattanam yàlla na yàlla yokk mën-mënam dak taxawaayam nag yàlla na ko yàlla gën a dëgëral Pape Modou la séemi te remercie du fond de parce que bu ñu amoon ñett wala ñeent yu mel ni yow kon kon njaareem kenn duñu raw kon nag yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay foo ko bëgg a àgg yaa ko xam yàlla na ko àggale yéen ñi ak moom nag nit amul lu dul njëriñ yéen ñaan ak moom nit amul lu doon njëriñ nga feebar mu taxawu la nga toll si liggéey mu jox la liggéeyal boo ko boo ko bàyyee keneen koo jàpp da sa bopp. directeur li ñu defal ni koy gisee sant ci yàlla bu baax a baax a baax te di ko rafetlu ndax euh, comme li comme comme li ñëpp gis rek ndax euh, directeur moom doon na koo xamante ni li muy def ci Sénégal laay wax du ma ne Diourbel mais li muy def ci Sénégal ñëpp gis nañ ko teg nañ ci seen bët doon na koo xam ne nit ku social doon na itam nit koo xam ne kuy jàppale askanu Diourbel la. rawatina Sénégal waaw régions yëpp dafay dem di leen defal ay ay ndimbal te doon na koo xamante ni ku yërëm askan bi la ku am yërëmande ñun ñun nag ñun handicapé yi personnellement dañoo jox benn cër boo xamante ne nii euh, leader yi fi nekk fii Sénégal laay wax du ma yem Diourbel rek bëri nañ ñoo xamante ni yàgg nañ fee nekk ak ñoom te joxuñu cër boobu ndax benn respecté nañu jox nañu cër même moom bu wootee këram sax audience ñun la personne handicapée bu ñu teewee lépp lu mu jàppoon da koy bàyyi mu wàcc dox ak tànkam ñëw recevoir ñu njëkk jox ñu suñu wàcc waaye jox ñu suñu cër ba pare soog a dem si ñi ci des kon donc li may wax rek euh, Pape Modou di ko ñaanal moom it moo xam li mu bëgg yal na ko yàlla defal li ma siy dolliwaat mooy di woowaat ñëpp nag di tàllal loxo àndi handicapée yëpp ndax nit ki su fekkente ne yëg na la am ci yooyu yërmande jox la cër ah yow it nga koy tàllal loxo ndax ñun yàgg nañoo bëgg soutien yàgg nañ bëgg ku ñu jàppale comme li koy faral di wax rek Euh, fii ñun Sénégal handicapé en général dañ koy banaliser ci benn côté mais chaque jour day fayet ba bokk noonu laa koy faral waaye moom nag loolu noonu daf ko xam ñëw appuyer ñu ndax euh, tey jii li waral lii yëpp euh, bi ma njëkkee dem ndax leader bu ne dem naa fa bi ma njëkkee dem ci moom wax ko sama problème carrément da cee jàpp yëkkati valeur bu 1 million 500 jëndal ma ndax man damay def moto taxi moto cek cek moom bi mu yëgee loolu te jagartaa laa ko demandé woon mais daf ne ëllëg de naa ko jëndal moto trois roues mu ciy liggéey mën a am dara. li ñu defal li ñu defal baax na li ñu defal yokk na suñu liggéey ndax bu bu bu defal ni moom mu baax mais li ñu defal ni tey ñun ambulant maa ni sam ñun ndax boo xoolee tey première fois ma gis ku gën ku jàppale marchand ambulant yi comme ni Pape Modou Fall def ni waxuma la euh, Diourbel la mais Pape Modou mën naa doon président ndax kenn ku nekk Pape Modou Fall taxawu na la fa la war a taxawoo ñun nag dana am boo xam ne nii marchand tablier ak boobu bi nga xam ne moom national la ndax boo xoolee am na dafa wër quoi am na Diourbel am na Thiès am na Mbour ñu ñëpp ñoo booloo xëy na ñooñ ñi ci bëri teewagul sax mais xam naa bu gën def ay njéew comme nii ma ko defee nii ñooñ ñëpp dinañ gën a góorgóorlu gën a jàpp Pape Modou Fall daal. campagne sociale 2023 boo xamante ne ni dañ koo lancé pour accompagner les handicapés les personnes handicapées pour accompagner les marchands ambulants et les tabliers mais aussi pour accompagner les personnes âgées. boo gisee ñu lancé campagne boobu c'est parce que gis nañ ñu Diourbel sur le plan social nécessité na ñu intervenir pour joxe suñ contribution ci li nga xamante ne ni moom lañu war a taxawoo population bi surtout ci wàllu social. comme jàpp nañ ni couverture maladie universelle le président de la république Macky Sall indi ko fi dafa nekk dispositif bu ama am solo boo xamante ni tey dana yombal faj mi sénégalais bu ne. te gis nañ ñu bari bëgg nañ cee adhéré mais peut-être doole ji mooy tax duñ ci mën a adhéré looloo tax comme niñ ko defee woon la fois dernière ñu ni tey aussi dañuy fexe ba enrôler mille personnes âgées mille personnes âgées yooyu nag dañ leen di enrôler directement c'est-à-dire du promesse nekkul loo xamante ni nii euh, dañ naan dañuy xaar wala et cetera dañuy contribuer directement budget bi leen di permettre ñu adhérer ñu génn ko budget bi leen di permettre aussi ñu fay directement les 3500 ñu génn ko si je ne me trompe pas c' est 500 plus 3500 égale 4000 multiplié par 1000 personnes c' est un budget de 400 4000 millions. voilà donc nous allons dégager ce budget pour pouvoir leur permettre dès demain matin de commencer le travail à la base au niveau des quartiers et au niveau du département. pour que en fait ñoom ñëpp ñu mën leen a enrôler rapidement. parce que li ñu ciy bañ mooy comme tey ñëw nañ en masse il faut que dès demain ñu commencer benn opération boo xamante ne nii day indi inscription bi ñu accélérer ko parce que sinon nit ñi mën a yaakaar ni ay promesses la alors que c'est pas des promesses. d'ailleurs looloo tax ñu def tey remise symbolique wu donc carte yi nga xamante ni jot nañ ko fi joxe ay nit donc dès demain matin les fonds seront disponibles l'union bi dina mën a dem récupérer ko. commencer le travail ñu maximiser de telle la semaine ou la semaine prochaine ñu mën a enrôler le nombre maximum ci ñu bëggee a inscrire sur le lot des mille beneen bi ci topp mooy ci wàllu aussi personnes handicapées yi comme ni ñu ko waxee woon sànq dañu woon dañ leen di accompagner ñi ci emploi ñu ne danañ créer dix emplois ci xëyu ndaw ñi mais aussi ñu accompagner leen pour ñu nécessiter financement pour financement boo xamante ni dana leen permettre ñu def seen ay activités looloo tax ñu ni dañ leen financer à hauteur de 2 millions donc pour les personnes âgées yi nga xamante ni nii donc engagé wu nañ choisir auto les personnes handicapées yi nga xamante ni engagé wu nañ choisir auto emploi c'est-à-dire choisir entrepreneuriat donc pour mën a liggéey mën a jàpp ci dara dimbali seen ay njaboot ñi nga xamante ni nii ñooy les marchands ambulants et les tabliers ñooñu aussi dafa am processus bu gudd boo xam dañ ko tàmbale woon au niveau du marché Ndoumbé Diop ñu jël ay experts ñu dugg ci terrain bi def enquête bi ñu defee enquête ñu recensé ñi nga xamante ni ñii ay ambulants lañ ñii ay tablier lañ te gis nañ ni néew nañ doole parce que kenn ku nekk ci ñoom boo xoolee lim teg ci taabalam boo ko calculer ma du mat sax cinquante mille donc kon kooku ñu jàpp ne buñ ko renforcer financé ko cent mille francs dana ko mën a permettre mu relancer waat activité am surtout rawatina ci tabaski gi ñu jëm donc looloo tax ñu ne dañuy choisir un premier lot financer leen kenn ku nekk ñu jox la cent mille pour que donc ñu mën a continuer liggéey bi ci noonu par contre biñ fi nekkee sànq ñu def tirage ba pare euh, Pape Bastoun dafa wax wax bu am solo parce que dani Pape Modou Fall comme yow borom xel bu rafet ga <laughs> bon en fait c'est social dimbali moo ñu yëkkati parce que bu ñu dimbali woon yëkkatiwul woon dañuy toog suñ kër jàpp suñ jàmbur benn ko def activité duñ ko def parce que tey kenn ku nekk xam na ni journée la boo xamante ne nii boo ci bëggee def activité rek c'est parce que bëgg nga sur le plan social nga accompagner population yi parce que loolu mooy suñ yéene te loolu lañ bëgg moo tax ñu def ko tey jii di le mardi ce mardi là moo tax ñu ni comme def nañ tirage te tirage bi ñu def génn na cinquante personnes muy loowu cinquante yi nga xam moom lañ bëggoon financé pour trancher le débat parce que bëgguñu kenn frustré wu bëgguñu kenn mer parce que looloo tax ñu procédé par tirage dañuy def de telle sorte que cent yi nekkoon ci liste bi ñu financé leen ñoom ñëpp ñu jàppale leen sans exception waaw cent personnes yi nekk ci liste bi yëpp la ñuy financé cent exception amu ci kenn koo xamante ne duñ la financé ñu ñuy ñi ñuy enregistré ci couverture maladie universelle ñu ñuy jox ay emplois amu ci kenn koo xamante ni li ñuy wax dëgg la lu ñuy def tey la c'est important ñëwuñu fi pour dig kenn dara même cinquante yi nga xamante ni dañ dañ ko ci ajouté ñoom tey balaa ngoon a jot danañ leen financé kon loolu mooy li ma bëggoon wax maa ngi ñëpp di gërëm ñëpp li ñu leen di ñaan mooy ñu fexe ba ñoom aussi engagement bi ñu jël ñu respecté ko <coughs> parce que loolu moo ñuy mën a permettre buñ financé tey cent ëllëg ñu dem ba 200 parce que dès lors que financé nañ 100 cela veut dire que d'ici deux mois le nombre sera doublé donc c'est un objectif de 200 yoo xamante ni les 100 seront financés aujourd'hui les 100 autres seront financés au bout de 10 mois parce que chacun doit donner à la fin du mois 10 000 sur les 100 000 il a pas d'intérêt il a pas de contrôle il a rien donc parce que c'est un programme social que nous avons lancé ce qui nous intéresse c'est pas de chercher des mais c'est tout simplement de leur permettre de bien investir et de pouvoir aussi euh, travailler, de pouvoir entreprendre et réussir sur ce qu'ils ont choisi comme euh, métier. di sant ñëpp di gërëm ñëpp.